tey dañ fi daje woon ngir euh, activité boo xam ni war nañ koo am euh, ci daar yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba mu nekk activité boo xam ne dafay dolleeku ci activité yi nga xam ne dañ koy faral di jëfandikoo ngir xeex li nga xam ne mooy sibiru sibiru li koy pour xeex ko dafa laaj lu bëri dafa laaj dafa laaj moustiquaire yi comme ni ngeen ko xamee laaj activité ay CPS yi nga xam ne dañ koy faral di def maanaam doom yi ñuy jox xale yi waaye bii dafa ñëw dolleeku ci loolu mu nekk loo xam ni Euh, tey dañ ko def tuubaa ci daare ji waaye lu lu yaatu la ci Sénégal ba tey nii ñu ngi koy def ci yeneen dëkk ci Sénégal yu bare bëre am na ci ay dëkk yoo xam ne tey paludisme bi bu fa delloo ginnaaw c'est parce que activité bi booleeg yeneen activité yi ñu doon yi nga xam ne comme ni ñu ko waxee sànq moom mooy tax ñuy xeex sibiru ñoom la ñu boolee ba tax tey ñu am ci ay résultats ba tey dëkk yooyu dañ naan ñoom kat ñi ngi ci wattaayu sibiru bi jeex foofu su ko defee kon loolu moo waral tey ñu ñu ñëwoon Touba ngir tàmbali li nga xam ni mooy aspersion intradomiciliaire maanaam wesaare benn tooke ci mur yi ngir mën a euh, ray yooyu yi nga xam ne ñooy joxe sibiru ngir mën a aar xale yi ci jàngoro jooju di sibiru waa Touba li tax ñu tànn ko ba pare ñëw tànn daara yi mooy Touba déjà nekk na dëkk bu mag nga xam ni euh, xëy na euh, bu dee ci ci kër yi dana yaatu lool waaye tànneefu daare ji aussi du tànneefu nen ndax boo neet daara ni tuubaa dëkk boo xam ni maanaam li fi ne ci ay daara ëpp na eh, junneeg lu lu lu jege ñaari junni mën naa ne ci ay daara ñu ngi fii ci biir Touba kon dañuy gis ni eh, def liggéey boobu ci daara yi eh, te daara yi ndongo yi ci nekk nekk ci kër yi dëkk ci kër yi kon da ngay gis ni loolu lu yaatu la loo xam ni dana dana laale ba laale li nga xam ne mooy ñu ngi ñu ngi ci biir kër yi kon looloo tax ñu tànn li nga xam ni mooy Touba ndax daara yi fii ci Touba dafa am solo lool. benn dafa dafa nekk daara yoo xam ne bëri na macha allah waaye aussi di di di di am xale yu bëri yoo xam ne dañ fay nekk te xale gis nañ sibiru dafa aay ci moom vraiment mën nekk loo xam ni mën na ko sonal kon dafa nekk loo xam ni tànneef la boo xam ni vraiment tànneef bu war la euh, comme doole ji xëy na matelawu ko pour mën a euh, jël li nga xam ne mooy Touba yëpp waaye ñu tànn cible boo xam ne fii ci biir Touba dana nekk cible boo xam ni vraiment bu bu bu boo xam ne day tax xeex bi gën a mën a nose ba liñ ci bëgg ñu mën ko am je pense que donc loolu c'est un choix très réfléchi maanaam lu ñu xalaat xalaat bu baax la ba mm, tànn li nga xam ni mooy daara yi ci ci ngir mën a def activité bi. incha allah dinañ tàmbali liggéey bi euh, samedi bii di ñëw muy le 26. bu ñu ko tàmbalee aussi euh, dinañ joxe benn cronogramme boo xam ni day tax ñu xam ni bu ñu defee samedi ci bërëb bi dimanche ñu jëm dem ci beneen bërëb lundi ñu dem ci beneen ba noonu ñu koy toppee ba jeexal ko ndax euh, loolu mooy tax liggéey bi mën a nose ndax dafa am ay wàccaay yoo xam ni fa ñuy dem ñooñu daara yooyu dañu koy wàccaay balaa xale yi di agsi pour mën def liggéey bi su ko defee kon dafay jaadu ñoom ñu xam yan bis nañ fay ñëw loolu incha allah donc samedi la ñuy démarrer liggéey boobu Euh, daar yëpp dinañ jot ci loolu ñuy wax naan chronogramme bi maanaam ni liggéey bi tëddee ba nga xam ne duñu ñu bett kenn ci bis bi ñu fay ñëw nga mën a jël sa wàccaay yi nga war a mën a jël yëpp mën a def liggéey bi ci nga xam ne noonu la waree incha allah